waaye nag feeg dellu gannaaw nag maye la ci kàddu hmm. ci yeneen ngir yi nag muy abu xanifa ñoom ak imaam shafi ñoom ñu ne maye daal kàddu rek dayut ci hmm. may naa diw nangam kàddu dayut ci lu mooy mu jébal ko ko hmm. feeg jébalugut koo ko rek ñoo maye ga taxawagut dagan na de ñu wax maye naa waaye nag taxawagut loolu nag fi muy wutee bi mooy si fekkee ne na maye naa ko te mu yem ci kàddu te jébalut ko kam mayoon de ndax ma ay dono mën nañoo laaj lañ lañ mayoon seen baay. Mhm. ñu ne déedéet parce que kam mayoon jébalewut bu dee ca Maalik yee nag axa ah comme que kam mayoon jébalewut waaye ki mayoon dee na mhm. te maye na ko ci kàddu sax na mhm. kon loolu mooy sew bi nga xam ne mooy ràññale mooy ràññale ñaari lii daal boo waxee kàddu gi rek sax na waaye nag ci kum saxee mooy ca kam may ci Maalik ci kam sax kam may rek la sax ñu ne ko waaw moom ki may nag mu ne bu delloo gannaaw nag fekk joxee gur rek mën nay dellu gannaaw mhm. bu joxee bu dellu gannaaw nag jeex na jeex na ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne mën nay dellu gannaaw xam ne ñenn ñoo ne may dellu gannaaw moom mënta am mhm. am na ñu ci d'accord waaye ñu ne nag su fekkee ne nag joxewut ko moom maye gi saxagut mhm. kon ñu ñëw ci loolu kam may bu deewoon maye gi saxut ki maye nag ñoom ñëpp nag d'accord nañ ci ne fekk joxee gut bu dee xamee rek maye ga yàqu na boobu itam na leer ki maye fekk jébbalee gut li maye su ko ca dee fekkee may nga yàqu na xanaa mu dee lu mayee loo xam ne bala mooy laata dee jébbale ko de waaye ràññeele na ko am nañu waxee noonu ñu ne comme sax mu am mbuus si xaalis dal li cay def xaalis ba bind ci turu borom wala sax ci jamono bi mën nañ ko tuddee cek ku bindoon ak cet doroo ko def tuur nit ne dama ko may waaw xam nga boobu jébbalagul ko waaye bind na ne may naa ko mhm. te ràññee na te lam may tudd na ko mhm. te ràññee na ci alal ji souvent ñu ne ko waa may nga taxaw na amaa bu dul loolu na may nga taxawut de léegi ci sant loolu mooy Seydina Abubakar sa radiallahu anhu mhm. dafa mayoon ja doomam Aïcha radiallahu anha euh, euh, sàkkab ñaar fukki beñwaar wala boog ñaar fukki euh, pañe tàndarma tool ak tàndarma boo xam ne moo ko amoon mu ne ko mayoon naa la day sàkkab lu tollook ñaar fukki wusuk su fekkoon ne day ah, ci sama tool sàngam ca aaliya dëkk hmm. ci goxe ci goxi Madina la mu ne su fekkoon ne day sàkkoon nga ko balaa ma feebar di gaar ñi hmm. koon ñeexal na la yàq moom waaye nag bés ni ki tey del si na nekk da alal ci alali ñu dono kon ñu déggee ci ne bon ku mayee te jébbalee ko maye ga su feebar gaaree sax may dañ koy taxawal. dégg nga waaj. waaw xam naa ne Thierno foofu de man xaw ma dafa fa xaw a am lënt lënt ci ne. Mm. léegi nag foofu naka lañ fay teqalee may ak dik dig nag dig nga xam ne euh, dig bi itam waaw maanaam yaa ngi nekkoon nag nit ki ci place sàngam daal mu ne la buñ ñibbee for exemple jox la waxtu boo xam ne bu ñibbee. balaa sàngam wala bu subaa wala bu altine bu tuddal la bés tuddal la at ne léegi dig la dara daal ba waxtu booba waaw xam nga dig dig euh, dig baatu olof la waaye may la waaw boobu xibaar lay war baatu olof la rek waaye euh, mhm. ci farafànc ba seetlante ne ci ni ñu waxee nii xel mhm. la ci xeetu maye waaw su fekkee ne moom ba mu ko diggee mhm. daf ko bind wala ba mu ko diggee ñu seede ko xam nga suba taxaw na lees léegi mooy tan fiis ko mhm. dagan na nag mu dellu gannaaw mhm. su ko mayee maa di goon dara dellu naa gannaaw dagan na mhm. dale kon charia dafa wax ne nag yaa aw foofu bala ahdi inil ahda kaana euh, mas'uula képp ku diggee euh, dañ bëgg nga matal sa diggee sa ndax loolu lu ñu laaj illa yawmal qiyaama jaame yàlla yi la euh, waaye terewut ñi daganal dellu gannaaw ci maye su ko diggoon ci diggante bi mu mu fomm dagan na su ko diggoon te fommut kam ko dig dee mhm. may la rek moom ki digg nag su dee xaawee ci diggante bi souvent moom nekkatul may ñàkk na mhm. dégg wax ji xaw ma fan la olof yi jëlee na dig bor la xëy na boo tey mooy loolu tam rek dig boo bor nag da nga ko war a fay <laughs> waaw xam nga mooy eh, ci fekku ñi wax ne eh, ku xas ba mayee waroo too cee dellu gannaaw ñoom ñëpp ñu ngi dellu ci xadis boobu yéen la di wax ne aji dellu gannaaw ci lam maye. Mhm. mu ngi mel ni xaj bu wëccu ba pare di ko lekkaat ñu boroom xam-xam yi ne waaw kon maye dellu gannaaw daganul mhm. ndax xaj wëccu dellu lekkanul dafa salte mhm. moo tax yonte bi dal li ni dalee maye dellu gannaaw ak loolu kon kenn warta maye dellu gannaaw xam ñu ne ah kañ dafa ñaaw rek waaye dagan na <laughs> dégg nga dégg nii <laughs> ñu ne dafa ñaaw rek <laughs> waaye dagan na de parce que xaj mën na koy def comme nga xaj dafay ci ba pare wala ba tegu lekkaat ko. waaw mu ne kon dafa dafa ñaaree ne comme ni xaj bi def rek waaye su ko defee itam dagan na. waaw kon dëgg gaa dëgg gaa ñu xaar. dëgg waaw ndax maye daga maye dellu kon nag kaw ñuy wax ne maye dellu gannaaw daganul maye gi nga joxle gi nga gi nga jébbale gut dig la. kon bor la ndax du wutul loo dellu gannaaw. waaw waaw bor boo dee boo la. dégg nga wax waaw comme que maye dellu gannaaw daganul. ci ki ci ki gis loolu mm-hmm. te maaliki yi sax ci lañ bokk mm-hmm. maye dellu gannaaw daganut mm-hmm. léegi nag maye na ko kooku dig na ko kon bor la bu sax ci moom fu nekk nii dellu gannaaw na am na itam ah, lépp loo xam ne lii bu arab la aw jazal xurru maa waada wala an jazal xurru maa waada ñu ne asin gor daal lum dële matal ko kon fa lañ jëlee xanaa bun ne kon maye bor la ku digge bor la ku digge war ngay taxawaat kon loolu mooy euh, ci gàttal kon xaadi ñu ngi doon leeral leeral maye ni ko maalikiya déggee ak li ko yeneen iskolof toor si déggee ci maalikiya su wax ji xasee ba addu rek mm-hmm. seede am moom maye nga sax na mm-hmm. waaye nag ci benn bor la saxee mm-hmm. mooy kan kañ may maanaam nu saxee ci moom am na xàqi euh, sàkku lañ ko may ne nañ ko ko jox ah. te su boobaa bu ëndee seede dañ ko koy jox su dee woon moom ci boppam te sàkkoogut ko woon ay donoom lañ mayoon am nañ xàq sàkk ko ñu dal leen koy may dégg nga wax ji amaa nag ki ma mayee moom fekkee ne joxeegut ko ci maaliki ak ñëpp de mhm. fekkee li mayee joxee gut ko jébbaleegut ko ba dee fekk ko ca wala feebar mhm. su boobaa taxu na du nekkati mayee kon ñu ko ko xam ne am nga loo mayee te bëgg mu yegg ca kan ko may ñu ngi koy ñaax fekkee déglu nga programme bi mhm. nga gaaw tuxal ko ca borom. borom waaw léegi mu am benn masala bu dee am te daan na jamono saxaaba yi. Mm-hmm. te saxaaba yi wax nañ ci te war nañ ci leeral. mooy ku may koo xam ne xaalalam yaa ko war a denc. Mm-hmm. ni ki doom ji ndaw xale boo xam ne ma suur a gudd nga may ko kër ndax da ko jox kër gi mu denc ko nga may ko oto. Mm-hmm. wala nga may ko xaalis. ndax moom moo koy denc ndax moom. maccoogul ndax yàlla wax na ne laa tuutu sufahaakum mm. amwaalakum ladi jaalaahu lakum qiyama mm. seen woy gàtti xel yi bu leen leen jox seen alal yi nga xam ne mm. mooy meesumeenu seen dund kon duñ dagan xale boo xam ne maccoogul jox ko alal te léegi may nañ ko ko ki ko ko may moo ko ko dencal loolu noonu nu muy demee Seydina Omar Xataab radiyallaahu ak jamono Seydina Ousmane dalaan bëri nit di maye te du ko seedeloo wala su ko seedeloo du ko ràññee muy Seydina war ne ak Seydina Ousmane ku mayeeti doomam lenn ci xalalam mm. na ko jox na ko defal seede te na ko ràññele loolu moo gën ëllëg mu génn àdduna ñu ñëw ne may naa sama doom nangam mu indi fitna ci biir njaboot mm-hmm. kon li ñuy dénk loolu fekk nga xam ne may na doomam kër wala may na doomam leneen mm-hmm. na ko seede ba pare na ko ràññee dana fekk itam mu nekk jamono gu wér gu yaramam su fekkee biir feebar la bu may gi du wér su ndax bu wasiye laay doon te wasiye waxoon nañ ne duñ ko mën a jox koo xam ne day doon kon ku mayee koo xam ne yaa war a denc alalam te mbokk ci ñu la war a doon li la sharia digal mooy nga ràññee lañ ko may ak sa alal maanaam nga setti ko ci sa alal bu dee nag euh, foofu nag beneen masala dina ñëw xaaw bi mm-hmm. xam nga fiq fekk lu jafe la ndax lu ko tax jafe mooy eh, jëf nit ñi eh, jëflante nit ñi ci lay wax te jëflante nit ñi dafay soppeeku ci jamono ak jamono da soppeeku ci aada ci aada xam nga bu njëkk lu ñu même ci xeet ak ci environnement bi ak waaw ah, lu ñuy wax document mm-hmm. ni mu amee léegi ci properties yi mm-hmm. bu njëkk document amul ko woon bu njëkk amuloon document këyit guy waree ne diw moom moom nangam loolu amuloon bu njëkk mm-hmm. waaw léegi nag am na te léegi ci këyit la ñuy jëflante. Hmm. nit léegi su mayee nit kër ci këram yi bu loolu bu njëkk ba la dañ lay wax ne hôtel seede nga wax ne hmm. kër sàngam laa ko may. Hmm. ñëpp xam ne kër gi dëkk bi bi juloo wala kër gi dëkk Latrikunda doomam diw sàngam la ko may su boobaa ràññale nga ko ci sa alal ji may nga ko ki nga ko may defal nga ko lu ñuy wax ràññale léegi nag bu dee jamono bii la loolu mën naa am ba pare xam la ne wala loolu mën naa ñàkk am ba pare leneen xam loo xam ne ni ngi doon naa moom ndax mën naa jël place am wala mënu ko jël mooy wax ji mm-hmm. fekkee ne dañ fekk ki dee mu bind toxal transfert ownership mm-hmm. turu turam mm-hmm. yóbbu ko ci kim ko may waaye nag joxagut ko kër gi wala waxagut ko sax ne yaa moom kii bi